asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 29 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb laatir bi Les ko yëglikaay bu ci nekk daal tey xëy nga ñëw ci combat bi nga xam ne démb day moo amoon fa nga xam ne moo doon stade Léopold Sédar Senghor combat royal ba nga xam ne nag Moustapha Diop moo ko tëggoon drapeau ba mu tudde woon ko Youssou Ndour le roi di mbalax comme niñ ko xamee waaye combat ba nag sunu làmb nee na day 7 minutes 36 secondes ca la combat ba toll daal di jeex na mu jeexee nag moo doy waar te jar a wax ndax Eumeu Sène ak Modou Lo boo xam ne ñu ngay lewaatoo di serse wante ku ne seet foo jaar waaye daal Eumeu day jekkee-jekki rek dox ci kaw Modou laaw góos Modou def rotation dal di koy dóor uppercut Eumeu Sène war wàcc daanu maanaam daal daal di dëpp yëglikaay bi ñëw nag wan ñu photo yi moom sunu làmb wan ñu tamit effort ba arbitre ba def moom Malick Ngom ba Eumeu daanoo daal mu daw moom di ko sauver ji ndax nag gis na ne kii day bopp xamatul moom fu mu toll Malick Ngom daw def ay jéego di ko dimbali maanaam daal moo tax sunu làmb ni day Malick Ngom arbitre bi daal moo sauvé tamit démb Eumeu Sène ginnaaw bu ko Modou Lo dóoree mu dëpp yëglikaay bi na tey wan ñu photo bu mel ni ki doon Tapha Gueye moom nee na lii day lu extraordinaire lu doya doya doy waar waaye xam ba tamit jàlloon na ba romb ndax ki ki nga xam ni day moo di Pape Diop Boston moom tamit dama mbir ma amee day xamatuloon fu mu nekk maanaam daal dafa xamoon mu mel ni ki démb nag parcelle daal jël nañ làmb ci moom toog ca kaw kii nga xam ne nii mooy Aline Diol nee na nag Modou Lo day dafa mérito li Aline Diol nag mooy entraîneur u Modou Lo Khadim Gadiaga mooy président ak ba tamit nee na day tey ne moom seeni xool sedd na ñoom waa parcelle ndax nag am nañ ndam loo xam ne day lu rëy a la Malick ñi nga moom mooy président tay si nga moom moom day nee na bu defet moom ah defet bu doy doy waar la ci ñoom ndax nag defeet bi moom metti na lool lool tourné daal ba yegg ci lool ndax ak mettiwaay waaye làmb jay day jàppal gis nañ fa ñii nga xam ne nii day ñoom ñoo di wàllu mystique ma daal bëri woon na fa bu baax a baax a ba mu mel ni kii nag bataille mystique ba moom foo ko takk weesu na ko provocation yi tamit ci làmb ji bëri woon na tool jàppal bàyyil ja mel ni bu ma la ko waxati mu mel ni ki nag démb moom combat royal bii daal démb wane na boppam bu baax a baax baax ci ay nit ndoolam wuusi ak itam loo xam ne nii day ay yëngu-yëngu la mu mel ni ki nag kañ tuddoon drapeau ba moom ñëwul muy Youssou Ndour waaye nag am na ñu ko fa teewaloon yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax yëglikaay bii nga xam ne nii day moo di la tribune moom la moo xam ne daal mooy Modou Lo moom dafa humilier kii nga xam ne moo di Eumeu Sène waaye leneen loo xam ne léegi su ko ñëw ko wax ko ci combat bi nee day kaw royal moom la Modou Lo jox kii nga xam ne nii day moo di Eumeu Sène daal di jël kuroon ba nag yóbbu ko parcelle Blaise Diagne moom nee na erreur bi Modou Lo bi Eumeu Sène def daal attaque bi mu attaqué rey erreur gënu kóoree nee na attaque bu bon boobu moo ko yóbbee lii ko dal Père Max Mbargane moom nee na liy leer ba day Eumeu Sène moom kuubi sax bett la ko def maanaam li ko dal moom da koo bett bu baax a baax mbay gi ne leen loolu lépp ay wax la ragal daal moo ko jàpp. moom daa fal ñemewul kii nga xam ne moo di Modou Lo Mbaye Guèye moom gis-gis boobu la amee moom daal daa jàpp ne kii di Eumeu seen day ragal Modou Lo bokk na ci li ko yóbbee li nga xam ne ni moo ko dal waaye leneen loo xam ne tamit dañ cey ñëw ndax lam jëfikoon bi daa sàjjoon góor a soog digganteem ak kii nga xam ne moo di Tyson 2 mu mel ni kii nag ñoom moom une minute trente neuf secondes la ñu bëre waaye lamb ja moom bëri woon na coow lool ñi ne nañ Tyson 2 moo daan wa ñee ca yes ne góor a daan waaye bu ñu fay génne moom góor a la arbitre ba ne moo daan ci ak sooba mu def daan jëlle bu leer waaye nag kat appuyé moom coow laa nga ca mel ni tulleeg màlle boo demee ca Leewtoo TV da nga fay fekk vidéo yi mu mel ni ki daal Iba Mar tamit yëngu woon na waaye jamono jooju tamit fii nga xam ne nii day moo doon stadium Iba Mar Diop ca samedi ja yëngu woon na ndax arobas itam wane na fa boppam làmb ja nag Mor Mbaye ngewel gi production moo ko tëggoon kii nga xam ne nii day moo di arobas yéeg li kaay bi ne na li leer ba leer dafa baston ne kii nga xam ne nii day moom moo di booy mankaañ ba pare door koo daan maanaam duma daan la ko def waaye sambi jooju tamit li amoon na waaye balaa caa dem daal jàppal fa nga xam ne mu doon ci arène nationale tamit kii di xam ne day moo di wan na kii nga xam ne moo di ngeer ne ko maa lépp doole te duma sa waaye kii nga xam ne moo di doomu dàngu day wan na lu leer naññ ki nga xam ne moo di faruus waaye samedi jooju baa bi nga xam ne nii wala lamb simple ya nga xam ne amoon na fa nga xam ne moo doon ca adresse Senghor yëglikaay bi nee na day Serigne Ndiaye de moo ko jël moo daan ki nga xam ne nii day moom moo di caaka fay ca final ba jël nag mis ba ñu fa tegoon waaye li leer ba leer day démb moom Léopold Sédar Senghor neexoon na lool mbër ya bàkku nañu supporters ya supporté way ya jolli waaye li leer ba leer day maalik Ngom arbitre central ba la mu def lu jara bàyyi xel la te itam nag lu jara jàngale la nit ku nekk ci danse nga doo sauvé ko ndax la mu def day bu ko deful woon kon làmbaay mënoon naa gën a ñaaw waaye kon tey daal ki may wax jaaraama man kenn lay doon mooy maalik Ngom arbitre ak la mu def dëmb ca Eumeu Sène ndax ba nit ñay talee victoire kay wax moom moom dafa daw ne ko xaaral mu ñëw génn la ci waaye loo ci mën a dégg Modou Lo ñu ngi lay félicité en tant que roi des arènes Eumeu seen ñu ngi lay encourager en tant que ku ñàkk combat lii mooy àddina loo ci mën a gis daal heure bii daaw yaa ngi fete sa couronne roi tey nag Modou la ko yàlla jox kon dama ne gars yi Parcelles ak Pikine Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar li am solo rek mbir mi nañ koy mel ci cadre sport moo gën a wóor ko waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm sant Babacar ngeen àndaloon si euh, revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa leen maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci Leewtoo TV yëpp à travers le monde ah di leen siyaar ci altine ji tey di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom di ñaan que na yàlla buur bi def jàmm si àddina bi yëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di nuyu internet yëpp Ndeye Coumba Euh, Amin Babacar Babacar tey nag euh, journaux yëpp euh, ñuy def làmb ak ñuy def làmb yëpp ñëw nañu ci combat royal bi amoon week-end bi passé diggante Modou ak ak Eumeu ci stade Léopold Sédar kii di Eco kii di sunu làmb Leewtoo TV ba ci tribune ñoom ñëpp ñëw nañu ci. waaw rek honnêteté kon ñu koy félicité ci nguuram bu bees boobu wala ndombam bu bees boobu nga xam ne am na ku démb ci kaw Eumeu Sène di encouragé Eumeu Sène mi nga xam ne moo ñàkk parce heure bii daaw 29 heure bii daaw mu ngi feete combat royal am wala boog couronne royal am moom Eumeu tey yàlla borom bi ñëw joxaat ko am motuloo loolu moo lay wan rek àddina moom lu nekk ak ak waxtoom ak heure ba muy ñëwee ñoom ñaar nag suñu bëri nañu di bëre waaye ku ci ne am na lu sa morom di bëre loo xam ne arrangé wul am na tànk bu sa moroom di teg boo xam ne du la arrangé doon naa ko wax ci ay doon naa ko wax wax naa ko ci ay vidéo Modou Lo style bi muy bëre ak tànk gauche bi muy teg ak Eumeu seen pied droite bi muy teg muy fausse garde dafay neex toujours ci Modou Lo suy bëre ak Eumeu Sène ci côté bëre bi ci côté xeex bi da ci yëpp avantage parce que li tax mooy moom fi muy taxaw dana sori Eumeu di ko gis comme li ñuy wax photocopie tiim ko. di ko gis te Eumeu Sène day am problème boobu ci kanam ndax li tax mooy Eumeu li muy bëgg def mooy parce que Eumeu laa gisuñu ko muy xeex nii di jam Eumeu lu xeexam yëpp maanaam ci biir Leewtoo da lay laaw ay arrêt lay maanaam da lay laaw laaw yooyu nag la lay mën a laaw pour jël si la mu dal la wala mu jël si la pour bëre parce que loolu li mu ci jublu mooy chercher bëre bi léegi saa buy laaw nag mu day am rota day am sensu def ay rotation pour mën a génn ci àll yi yaa ngi dégg te buy ñëw da koy mën a gis su génnee ci àll day am sensu tamit mën ko contrôler pour mën ko dóor. boo xoolee seen combat bu jëkk noonu lañ ko bëree ba mu jeex démb nag pour man mu dafa gën a améliorer loolu dafa ko gën a defar parce que li tax mooy boo xoolee benn kor fa am mu dóor ko uppercut avant benn bi yegg si sax waa ji pare na kon ça veut dire gën na liggéey liggéey liggéey loolu techniquement daal dama gëm ne kon loolu man laa jàpp ne mooy liy xañ Modou Lo liy xañ Eumeu seen ci kanam Modou Lo taxawaay yi ci xeex bi taxawaay ci bu dawee jëli tànku góos bi parce que mu tànku góos bi pour nga jaar ci daan ko tamit lu jafe-jafe la waaw parce que mbër mu ne dafa am foram am na loo xam ne nag euh, ci làmb mënu ci bañ a am mooy lan defet ak victoire ak match nul defet a am démb ci ko Eumeu Sène nekkul ne dafa tële bëri nekkul ne du champion non non champion parce que xeex rayante ba nekk roi des arènes champion nga mbër nga kon Eumeu Sène ñu ngi koy encouragé waat encore une di ko wax ne nag na jóg defaru ji parce que mu ngi ci làmb làmb moog li ànda Modou Lo tamit ñu koy félicité di wax ne moom itam nit bu am jom la parce que tamit boo ko xoolee par rapport ak mbër yi ci réyaay ak guddaay doo ko gis ci côté boobu mais nag ci xarañteemam ak ci fulam ak faydam ak ci bëgg li muy defam vraiment xëy na mën nañ ne moo ko indi fii mu toll tey parce que lu wax tamit du ñëw si làmb nga ne entraîné wul xanaa mën nga ne entraînement ba ëpp na ba indil na ko problème mais entraîné wul moom dalagul Modou Lo si làmb kon daal loolu démb moom mooy lu amoon Léopold Senghor muy lu doy doy waar doy waar boobu sax moo tax tribune ñëw ne si humiliant maanaam gàcc la daal ci ci ci Eumeu Sène waaw c'est humiliant gàcce waaw bëre moom fola waaye dañ ne ku daanu rus man nag am na façon gàcce boo xam ne du ma ko du ma ko ko tuddee ah parce que li tax mooy làmb la ndey kumba nañ koy baat si cadre sport rek nañ koy tagaat si cadre sport làmb la bëre dóor la ñu wax dem wax naa ko Talla Ndiaye nee naa ko làmb benn coup mën bëre dóor benn coup mën na jeexal làmb te effectivement foofu lañ mujjee yaa ngi dégg kantaan nag gàcce la waaw d'accord parce que bu sañoon am ndam waaw man li ma koy tudde rek mooy ku uti woon te amoo boo utee dara nag te amoo ko te la la la nga waroon def la la waroon la nga waroon def def nga ko dem nga maanaam entraîné nga ànd nga ak say mbokk moo nga bëri si nga ñàkk pour man la nga war def kay mooy santaat yàlla waaye du ma ko jàppe nag gàcce goo xam ne ni dañ naan eh, waaw gàcce gu kawe gu yegg fenn fi quoi non non cadre sport la am na defet defet bi nag xëy na ni mu dikkee am na ñu ko woon mais am na ñoo xam ne tamit xalaatoon nañ wan mën na cee li ma la wax rek seen i taxawaay da ciy feeñ fois rek ñu koy encouragé rek Eumeu Sène ñu dem si les échos les échos moom dafa jox euh, kàddu technicien yi ku si mel ni Omez ku si mel ni Max Mbargane ak ki nga xam ni moom mooy euh, Mbaye Guèye ñoom ñëpp nee ñun daal Eumeu waru woon attaqué Modou Lo Babacar. waaw parce que Amar Diagne ne na moom attaque bi moo baaxul effectivement attaque bi baaxul parce que li tax attaque bi baaxul mooy li ma la wax rek moom suy attaque si mu da koy gis ni mu ko bëgg a gisee ba pare da koy sooy. yaa ngi dégg li mu bëgg a def mooy attaquer ko ak laaw dóor ko jàpp ko léegi loolu mënu ko am moom la def mënu ko am xëy na nag moom mi ko doon jiim li ko xelam mayam ak xalaatam loolu la def foofu lit ki nag li ngay def di ki réussir des fois ci ngay juum xay na attaque bi moo baaxul attaque ba nag la ko teree baax moom mi ko doon natt xëy na jàpp na ne baax na mais tamit dafa am ku mu jàkkaar looloon kooku tamit lépp ëmb di plan da koy jéem a pour du baax kon moo moo désuwe plan bi ba plan bi yàqu mbay gi moom dafa jàpp ne ragal la Eumeu Sène def ki nga xam ne mooy Modou Lo waaw moom ñu koy nuyu di ko ziar tamit suñu la mais man yaakaar naa mbër bu lekk sa avance euh, sëgg war a bëri ak yow pour man ragal mën a tënd yaakaaru mu amati fa yaakaaruma la mais nag xëy na man na xëy na bu dee xëy na ci beneen sax mais ragal gi moom yaakaaruma parce que yaa Eumeu Sène nekkul ragal pour man ci sama gis-gis waaw moom loolu la gis moom père Mbaye gi yàlla na fi yàgg te gudd fan moog doomu aadama keneen ki ci des tamit yaakaar naa muy euh, kan moo ci waxaat. Père Max Mbargane nee na moom dafa jàpp ne Eumeu coup da koo bett effectivement loolu mën naa ko nangu parce que bëre bette la bëre moom bette la parce que li tax coup bi da koo bett mooy bi mu laawee ba mu def ba génn bi ko muur yi tànc di ko tàccu boobu sama waaye xam naa ne moom loolu dina la bett mais nag muur moom prévaroon na loolu Eumeu lay bett mais bottul bettul Modou mi nga xam ne nii moom préparé na li mu bëgg a def parce que boobu moom loolu la préparé liggéey na ko pour xam ne bu ñëwee bu defee lii su ma ko defee lii am ci lii Eumeu itam la doon carte la woon Modou jëkk na ko ci jël na ko félicitation Modou di courage ëmma euh, Babacar si félicitation sax la ñuy des parce que journaux yu bëre nee nañu euh, ni ngi félicité arbitre bi nga xam ne moom mooy Pierre Malick Ngom mi arbitre combat bi parce que nee na euh, su su réaction su gaal woon xëy na kon tey waxaatuñu leneen la ñuy wax pour pour pour Eumeu Sène waaw Malick Ngom comme li ma la wax rek ay ndey gumba baax rek mu am solo gis nga baax lu ko waaye jënde jar na ko yàlla nañu yàlla defal mbaax barke yonent bi salla ku mu tësax yàlla na la yàlla forcé la ko ba nga baax parce que li tax may wax loolu mooy Malick Ngom ahlu lamb yëpp def def nañ ci moom benn constant si bëri jàmmam ci mën a saafonteeg doomu aadama fair play yëg nit loolu Sénégal yépp a ko def ci moom constat rawatina nitu làmb yi xëy na nag melokaan yooyu soo ko melee yàlla ni benn bés boo xam ne bés bu mag la mu gën la cee woon àddina yow sa melokaan loolu moo ko dal démb ndax démb combat doon bëri combat bu mag la combat royal la drapeau yu sunduur la woon affaire lu mel noonu am ci kaw bu mel noonu am ci mbër mi perte connaissance complètement ni mu dëppoo garaaw loolu parce que boo yéexoon wala nga ci leneen man la na ci am mais moom waxatul yëkkati loxo Modou Lo talatul kenn moom dafa daw da ngay xool daw ba mu daw xel bi mu daw jëm ci Eumeu Sène daw rek bi tër ñu ko jëkkante gémmiñ gi pour dimbali ko génne protestant bi pour mu mën a am espérance ak rocci làmmiñ ak rocci làmmiñ bi kon Malick Ngom vraiment ma koy nuyu di ko siyaar man sama waay la Malick te dafa waay la waaw waayu ñëpp la ndax fu ma gis démb na ne bu ma seen ma taxaw sax dina ma taala ñaay lan la may tooñe parce que bi may wax ana Ndeye Coumba Fall ana Aïssa te noonu la mel ne ko waa làmb yëpp des fois euh, mu ne ma sama comme sama soxna teneng la tudd mu ne sama bàjjenam teneng la tudd moo tax bu ma gisee rek ne ma série teneng wala mu ne ma Talla kon Malick man daal moom tappal naa ko médaille man ci sama gouvernement man bi ma moom médaille lan ku ne am nga sa république kon takkal nañ ñun waa Leewtoo tappal nañ ko lion d'honneur lañ koy wax wala wala lan moom daal loo ci mën a dégg ñun tappal nañ la médaille Malick médaille yu jaaraama. rapidité. rapidité efficacité mais euh, dama koy. xarañ ak xarañ. waaw démb dafa séddoo Modou Lo xarañ ji kon li may wax daal mooy ndey kumba yàlla na yàlla leeral suñu ay xol dafa am solo trop si doomu aadama xol bu set. loolu am na solo Babacar Babacar nag euh, sunu laam nee nañu Modou Lo mooy septième des arènes ginnaaw ba euh, ginnaaw Manga 2 ginnaaw Tyson Yékini Bombardier Balla Gaye Modou Lo daal mooy septième roi de des arènes léegi nag fu mu jëm yow Babacar. waaw léegi de fi mu nekk nii fi mu jëm moom bëri na parce que Modou man bu boo bëggee dégg dëgg dama laan mooy mbër mi ëpp adversaire actuellement si làmb parce que li tax ma wax la loolu mooy mu day bëri waa Guédiawaye day bëri waa Pikine day bëri waa Fass day bëri waa Parcelles di bëri waa Bawal. non astafurlah ma naan waa parcelle parcelle. waa bawal waaw day bëreeg kon foofu defe naa ne euh, tey amatul mu boo xoolee benn mbir la fi bàyyi woon ci carrière am moo doon Yaxya Jóob Yékini ak Baboy na loolu mënoon nañ ko comprendre mais à part ça tey ñooñu bëreetuñu kon fi mu nekk dama naan mooy mbër adversaire bu ko neexee joxe ay revanche su ko neexee. bëri combat jànq combat jànq digganteem ak Bombardier revanche la mën na laaj revanche am ndax fa la njëkk wute couronne bi Bombardier daan ko war nañ ko mën a bëriwaat bu ko neexee mu wuti combat jànq bëreeg tafaatin ndax seen combat nit ñi bëgg nañ ko te am nañu ko doon wax loolu lu war a man a nekkal su ko neexee tamit moog Balla Gaye ñu def waaw troisième combat. yaayam nee na déet nee na moom du si daal. waaw ah yaayam nee na dugaleeg Balla ah dafa doy waar Balla dinaa xaw a yéeme su ko neexee tamit mu uti mu mu moog la dëgër seen combat bëri na ñaari yoon mat si nit beneen bi ci des mu gagné ko par ay avertissement foofu tamit combat war na fa mën a amaat su ko neexee tamit Ama Baldé mi nga xam seen combat ñu ngi koy wax ñaarati yëpp mu mu ñëw ne ko kaay. gaa yi ñu bëri combat jànqal kon fi mu nekk nii la olof yi wax rek moo doo yor ci gël gu mooy choisir waaw waaw Babacar na nu jeexalee komba bu amoon samedi bi nga xam ni p euh, sunu DGA euh, Diaw moom lañ ko tuddee woon si diggante Franc ak ak Nguer samedi yi la woon si arène nationale euh, galaawu Fallou Ndiaye waaw Fallou Ndiaye ñu koy nuyu di ko ziar moog waa Ndiaye Pro yëpp tëggoon na galaa bu neex samedi vraiment ki nga xam ne nii mooy góor a soog ak Tyson bu bëri coow wax waaye loo ci mën a dégg moom arbre la ñu def daal wala ñu fa gis mooy góor a moom moom mujj daan moo yóbbu drapeau ba combat monsieur Diaw nag wala drapeau monsieur Diaw moom franc moo ko jël ci kaw ngeer loolu tamit ah su amee làmb lu ne mën na si am mais nag du bett ñu bëri ndax franc ngeer ci bëre moom actuellement yaakaar na seen niveau xaw na ci wute donte ngeer du ma ne franc da ko dàq bëre wala nangam mais nag maanaam bëri day toll foo xam ne moom pour nga daan ko day jafe te Franc actuellement defe naa waaw fi fi mu nekk nii foofu la toll kon loolu ñu xalaatoon joxoon ko faveur yi mujj na wuyu fañ ko doon xaare mujj na fa wuyu si muy gañe na Nguer ci gañe boo xam ne bu gaaw la jël drapeau Moussa jaw kon ñu koy féliciter di encourager Nguer di nuyu tamit Diaw ak délégation bi mu àndaloon yëpp ñoom Thialis Faye soxnaam ak ñoom yandeeg ñoom ñëpp ah gis nañ leen fa kera ñu ëmb ko indi ko muy lu rafet a rafet di nuyu Fallou Ndiaye ak Kañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ko choisir tuddee ko drapeau di wax ne que rek Sénégal la soxla ah. ñu si jàmm euh, tamit di wax ne que Mor Mbaye tamit tëggoon na làmb ci samedi ji ki nga xam ne moom mooy arobas moo daan booy mankaañ loolu tamit ah Iba Mar la amee woon mu mel ni ki weekend bi daal neexoon na trop ci làmb Babacar nag si kàddu yoon leen di tàggoo leen jox dig daje suba incha ak Aïcha Faye di ko nuyu mi ngi si yeneen liggéey moo tax tey gis leen ko fii euh, di nuyu aussi sama yaay euh, mère Sow sama doom di nuyu Dadi Guèye di nuyu euh, Modou Guèye depuis depuis États-Unis Baye Fall bi di nuyu aussi Zey depuis Mbour nuyu aussi Astandine Chéri Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies door nañ moo ko door di ko Massawu rek. si défaite bi daal. waa non loolu loolu moom mooy sport ah xam man moom maag ba ma nekkee xale la ah, bu bu fekkente ne yaakaar naa mag Malamane ak ñoom El Guèye ak Fernando Hierro ku leen xam ci Real Madrid yaakaar naa xam ne loolu lu yàgg boobu xale bu ndaw laa ma di leen supporter ba tey foofu moom maa fa fis ba mu neex moo tax Serigne Diouf itam tamit ma koy nuyu di ko ziar dafa ñu ci ay numéro 10 waa gis nga kon moom mooy loolu quoi di ko ñaanal jàmm mais tamit di ballu Sénégal yëpp aaf na yàlla ñu dimbali bu ñu juumee tamit nañ jàpp ne ay nit la ñu rek démb gaay ak naan ma nooyi bi ci ci comme grand combat bi mais boobu dama sonnoon mm-hmm. dama sonn taw bi dafa metti woon moo tax ma doon xam nga mooy loolu quoi di ci balu àq ñëpp daal di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñoom Ndongo Fall ñoom ki nga xam ne nii moom mooy Benzema dem Asi Diagne Lo maa ngi koy félicité a baax ci di encouragé ñoom Issa Bo Ama ak ñoom Lamine di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Aïda tamit maa ngi koy nuyu Aïda Diouf dégg naa tey dafa xaw a kii yàlla na yaram wi wér ak jàmm Aïda barke yonent bi sallallahu alayhi di nuyu taal. Babacar làmb ji tëj na. waaw ah, moom dañuy bër nag dem noppalu ji récupérer waaw. doo nuyu taal. taala ah taala ba mu a nuyu taala kay taala kay boo ko nuyul tamit Sénégal nuyu ko ndax tax xam taala Ndiaye wala àddina bi sax laay wax. <laughs> jërëjëf Babacar suba incha